naa ko bu yàgg. juma da ngay jur. jël naa ko bu yàgg. juma da ngay jur. sunu papa ji. juma gaa yi nekk fii di wax rek. billaay gaa yi nekk fii di wax. barke Sëriñ Tuubaa xoolal ma xam nga ni képp xolam dara néew si. billaay dara néew si. gaa yi nekk na ni yow sa xol dara nekku si dara dara. laaj soxla tele bi. waaw mi ngi nii waalee daw. dernière fois nga xam ne kii. sa xol dara nekku si. xolam dara néew si. loolu la si barke Sëriñ Bamba gaa yi wax rek. waaw gaa yi wax. mais xol bu rafet la yor. billaay amul solo xam nga tey. dëgg la soo showbiz dafa am mais lépp respect lay doon am na ñoo xam ne tey boo leen rombee da nga leen làq dëgg leen romboon ci mbedd damay daw song leen man nga leen di mais am na ñoo xam ne ñu ngi naan showbiz lañuy dund su ma leen romboon yéen a mujj ci waay yéen nga xoolal mu leen def dëgg la leen leen defal loolu tey dafa leen naw moo tax mu def dëgg la nawul jigéen lool ndax am nañu fa yàgg am fa téeméeri at wax di wax rek te mosu leen ci boppam da leen di tàmm. dëgg la kon nag boo nekkee xale ci yoon dañ la a teg man nag moom xaritu ñëpp laa. loolu am na am na mais affaire yi nag moom rek. ku xool tey xam ne yow xarit xamante nañ waal yi man ak moom du tey. démb la tey soo dëgg la man lu ma ko war lu ma ko wax rek. dama ko te lu ma ko wax rek xam naa nu ma koy waxee te lu ma ko wax xam naa fu ma koy egg. te dépensé du am.